خليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون mbokk yi kaddu yi nga xam ni moom la grand serigne de Dakar tëje moom la ñu fas yéene introduire ki nga xam ni moo fi représenté Cheikh Seydi El Hadji Malick di xalif général di Tidiane Sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum représenté fi njabootu Cheikh El Hadji Malick yaakaar naa ni bisu Seydi El Hadji Malick bu ko Cheikh El Hadji Malick présidé tabaarakallahu buñ ko dégloo ci kàddoom ci yiiwam Serigne Abdou ne léppam ci loxoom moom la ko teg ak njabootu Cheikh Al Hadj Malick yëpp ànd ak doomam Serigne Ahmada si Jamil ànd ak doomam Serigne Abdou Aziz si bu Serigne Sidi Ahmed si kon ànd it ak suñu waajur soxna maam Ba Sène tabaarakallahu muy Serigne Pape Malick si mi nga xam ne dundam yëpp daf ko sacrifié pour la cause de l'islam li koy symboliser it benn mool bu nekk ci gaalu lébu moo nekkoon géej. tablo bi mu jël ko dessiné ci xalif général de Tidiane Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum mom la grand Serigne de Dakar indi jox ko Serigne Pape malik si ngir symboliser li nga xamantene tay mom moy bis bi kon tabarakallah emat Abdul Qadir ñu ngi wax ni festival bi tay la ubbi ci mam Cheikh Al Hadji malik kon tabarakallah ñep kenn lañuy déglu mudi Serigne Pape malik si ñuy wax ni adjointe au maire soxna Rosalie Diop mi ngi fi ñuy sant tamit soxna yi ci seen mobilisation ci seen taxawaay dawaa iri wuñu kenn waxtu be ñu teunk ki ñepp di déglu nak moy Cheikh Al Hadji Malik ci bisu mam Cheikh Al Hadji Malik kon Serigne Pape Malik ñu ngi lay ziyara di la baalu ak Dakaro ngok Dakar dama koy tok léegi Serigne diko déchiffrer del 4 la alif 1 le muy 5 ra ñew keef 20 muy 25. Radi 200 muy 225 ta paquetu sucre, 225 morceaux mo ci nek kon nous sëriñ suukaral ñu lepp ci biir

à l'esprit ouvert, généreux, responsable et courageux. Les bougies. Tabarakallahu, Nudik. Serigne Abdoul Aziz Al Amin ci turu Al Khalifa Sayyid Cheikh Ahmed Tijani mu mel ni bi may ñëw itam biig ci guddi li ma Abdou woo wax ma ni ma ñoom dañ may togn comme saint cousin mook sëñ Cheikh wax ma ni ma suñu mbokki lebu yi dañu am daje ëllëg ñu ni ma comme yaay lebu famille bi nak yaa ca war dem ah, d'accord bu ñu la boolee ak bokk ku neex a bokkal bokk dafay dal sa xel mooy duñu deñ mukk di leen ko tuddal àbb tagg bu yonent bi tagg waa ansaar abbu bobu tag bobu ñu abbu ko ci mom tag leen ko yéen ndax dafa waxoon ni wa ansar la wax ni innakum latakthuruna inda alfasaa wa taqilluna inda altama waaw mu ni bu ma wallu rek wa ansar nek sama bouclier ndax considération bi nu am ci man mu ni waaye bu dara desul nag lu dul ñu seddoo butin bi nu jële ci ñi nu doon xareel waa ansaar soxlawuñu ko dañuy daw nëbbu ji waaw euh, loolu fa la générosité waaye ma wax ni ci Cap-Vert amul magu diine bu ñu fi teralul waaw ci turuq yi fi nekk yépp ci àdduna waaw ndax euh, turuq yi fi nekk kenn ku ci ne la nga sos pour sa njaboot mën ci rafetal seen jaamu yàlla bu ñu ko tuddee wujje rekk tooñ leen te serigne Abdul Ahad dafa ma sax wax bu am solo dafa waxoon ni bu len nit nuyo laaj la ban tariikha nga bok rek rocil sa loxo ta xamni ni la fi ci Ndakaaru nak am lu len yàlla defal mo xam Cheikh Saadu abila mo xam serigne touba la moo xam Cheikh El Hadj Malick la ci ñi leen fekk si parce que bu dee limaamu fi la dëkk ndax maam Kumba Ndooy Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala anhu premier voyage am ci Dakar yaatuwul woon ndax dafa am ñu mu àndaloon ñu di ay taalibe benn néeg lañ ko abaloon fa la daloon ak taalibe yi waaye booba itam taxul ñu xam ko lool moom Maodo xamoon nañ ni rekk sëriñu tukkulóor bu rafet alquran la xamoon nañu ni sëriñu tukkulóor bu yaru la Euh, te sëriñ Babacar si daf ñu daan wax ni màggu lébu moo woon yar la mu yor yaa ko moom waaye boo ko jaayee yaree dikku nag mu won la ni moo la gën a yaree dikku kooku seen seen seen jikko la Cheikh El Hadj ci jamono yooyu fu nit faatoo ci liwër ndakaaru dañuy wax nañu dem wax ko sëriñu doxandéem bi parce ki faatu doxandéem la bu ñu ko waxee Cheikh El Hadj juróomi taalibe yi mu àndal mu ni leen dem leen jëli néew bi bu ñu jëlee néew bi du ñu am oto bu ñu ko dugal du ñu am charrette bu ñu ko dugal ñoom ñooy boot néew bi di ko awante ba bu nuy agsi ci kanamu Cheikh El Hadj mu sang sang jullee ñu jël robi booba Ndakaaru yaa toogul léeg-léeg ma tàrde ci samay course ma dikkee kër ga damay wax ni Ndakaaru dafa xat sama soxna daf may wax ni yéen waa kaw gi yéen a ko xatal bu ngeen ñibbi woon rek mu yaatu ma ni ko ay bu nu ñibbi woon lu leen song guddi mën leen waaye loolu bokk na ci yàlla sagal gu mu sagal mag ñi ci seen ñaan waaw ci ci ci Cap Vert parce que Cheikh Haj malik daf daan topp tefes gi rekk bu teyee mu nga Yoff bu ëllëgee mu nga Wokam beneen yoon mu nga Ngor bari na magi lebu yoo xam ni dañu daan wax ni dañ ko ruus dañu ruusoon Maodo te boobu xamuñu cëru yàlla waaye mag mu ci ame sa gën di tux boo gisee Cheikh El Hadj roof ko ci biir beeñ bi waa ngir jox ko cër ba yàlla dogal euh, mu xëy kër yépp nekk këram waaw ngir yaatal ni kër yëpp nekk këru ñi nga xam ni ay kilifa lañu te am fi ay turuq yàggul maa ngi toog di waxtaan ak le ministre de l'intérieur ci bureau ma ne ko mais est xam nga ne fii la Cheikh El Hadj Malick dëkkoon mu ni jotu ko woon xam euh, ma ne ko fii la baraagam nekkoon moom Maodo mel ni ko dafa am ay xew-xew yu fi xewoon ma ni ko bu njëkk bi mooy li mu fi liggéey fii ci biir ministère de l'intérieur ma ni ko moo tax ma jàpp ni c'est le cerveau de l'État ndax la mu fa liggéey ci digganteem ak boroomam ma ni ko am na bés ndakaaru sedd sedd bu metti moom Cheikh El Hadj soxnaam boyalal ko fourneau bu mag dugalal ko ko ci suufu porte-manteau bi moom Maodo mi ngi wone gannaaw furno bi yor kurusam di jaamu boroomam mbubbam wekkeeku daanu ci ànd bi soxna si dugg gis mbubb mi tàccu wax ko ni ko góor gi mbubb maa ngi lakk mu ni ko bu ko waxati yàlla ruus naa lakk sama mbubb moom Cheikh El Hadj ñu yëkkati mbubb mi fëgg xëñ ji sax defu ko mu di lu am solo foofa ci ministère de l'intérieur bi ko ñaareel sëñ Babacar Sy moo ko nettali moo wax ni fii seen maam dëkkoon ci ministère de l'intérieur fi la njëkk a déggee kàddu cheikh borom tariqa bi ci lu dul gént mu ni ndax seen maam daf ma yónni ma dem doxal ko service bi biir Dakar te bi may dem moom rek laa fi bàyyi bi ma dellusee pour rendre ko compte ni ma dégg ku muy làkkanteel arab ci biir néeg bi ne ma ni ganama fi wuutu nee na toog lu yàgg ma dégg ñuy wax ñoom ñaar ba mu yàgg Cheikh El Hadj ubbi bunt bi ni ma Babacar ndeke ñëw nga ma ne ko waaw ah, duma ñëw fekk fi gan ne ma dugg gisuma kenn ma ne ko ah, dam foogoon ni gan fi nekk mu ni ma Cheikh a fi nekkoon waaw na keroog it laa xam ni ñoom ñaar dañuy tutuwaayante Eh, lu am solo la waaw lu am solo la mais considération bi nga xam ni moom la lébu amoon ci moom moom Cheikh Al Hadj parce que ñu ci bari am na ci ñoo xam ni boroomi secret lañu ñu woon ah, xam nañ ko bu baax a baax profondeuru eh, profondeuru lébu yi moom la ñu bari xamul dama ànd ak sama waa yi booru minuit ci guddi dinañuy faral di duñu toog waaw fu ne la dem ma ànd ak sama waa yi booru wi ci guddi ñu yéeg ca faar ba faaru mamel ba waaye ci yoon wi ñu gis lu xaw mel ni jaan lumière auto bi matul 50 cm waaye rëyaay ba tol na ni chambre à bu Berlin ma ni chauffeur bi taxawal mu taxaw ñu may ko mu jall ma ni leen tuur la wa tour la borom tour la lañu ñun bu ñu gisee tour dinañ ko xam Eh, yooyu yëpp bokk ci cëru Cheikh Al Hadj Malick waaye man damay wax ni force de caractère ñaar ñoo ma gën a intéressé ci dundam te bu ci nekk défi la bu njëkk bi dafa wax ni yàlla bu ko neexee mu yóbbu ma safara moom Maodo moo ko wax mu ni ndax coobareem la mu ni waaye lu ma laa koy bind nag ci lu ma def lu mu tere mu toppe ma ko du am waaw mu ni du am mukk bu ko neexee nag mu yóbbu ma safara parce que nee na jaamu yàlla du yóbbu nit safara coo du yóbbu nit aljanna coobare nit mooy yóbbu nit aljanna coobare yàlla mooy yóbbu nit aljanna parce que nee na nee nit jaamu na yàlla ba xëy faatu ñu ne ko sa jaam bi la daan jaamu ñëw na mënu yóbbu leen safara nit nekk ci bakkanam ba xëy faatu ñu wax ko ko mënu yóbbu leen aljan ñu ne ko lu tax mu ne moo ma neex jaamu koo gën a dal xel booy dem safara it nga xam ni jaamu nga ko kooku défi la mais défi bi ko ñaareel te mu wax ko mooy nee bu déggee ñuy wax ni seytaane dafa bari doole moom Maodo nee na bu déggee ñu ni seytaane dafa bari doole mu ne xanaa ki seytaane jot ci moom mu ni Malick de seytaane jotul ci moom te du jot ci moom ila yowmil xiyaamati waaw loolu ci force de caractère te cheytane maa koy xalaat ci Cheikh Abdul Qadir mbé tok turandoom Cheikh Abdul Qadir jeylani mo dan def fu mu sen iblis rek fàq yar fàq yar te yene ko bo ak sa rek ma def la musiba dafa mujjé iblis da fay jaxlé di wax wa gor gi na xaar ba xam ndax visite de courtoisie ma indi wala yakal ko waaye fum ko seen fàq yar parce que mag ñi noonu la ñu yare seen bopp may wax ni Cheikh El Hadj Malick waxuma li ko xaraam mais li ko dagan sax dafa am fum ca yemale bakkanam waaw ki dem ba aaye boppam ni du naan soow

gis nga sëñ Babacar si boo ko mësaan bëgg a daaneel rekk tudd ko Maodo toute une journée dana nekk di la wax ay jikkoom ba nga dégg biir dënnam bi di di di xiix fu mu toll te wax ci Cheikh El Hadj rekk a tax waaw am ci yoo xam ni boo ko nettalee boo ko nettalee dafay niru ni danga koy wutal daraja moom Cheikh El Hadj Malick waaw te soxlawu ko waaw sëñ Babacar si def ñu da mag ñi mag ñi dañu toog ak sëñ Babacar ni ko waxtaanal nu ci Cheikh El Hadj Malick sëñ Babacar waxtaan ci waxtaan ci waxtaan ci ba mag ñépp bëgg ñu ni ko léegi ñaanal nu nag garantiral nu aljanna nuñ Babacar ni leen xanaa xamul leen ni ñi nu suul tiwaawoon te du nu jullit ba léegi yàlla jëmagul ci seen dosiye ndax rus Maodo waaw ñenu fa suul te nu jullit kon mu mel ni am na lu nu ko war a mëne yaakaare waaw yàlla xiir ko fii ci Dakar nag eh, mag ñu bare jox ko seen bopp mu dénkaane wax ni nañuy defal Cap Vert ñaan ñu boot réew mi bàyyi ñaan ga ak sëriñ Babacar si sëriñ Babacar di ko def ba xëy wuy ji boroomam sëñ Cheikh si di ko def ci almadi at mu jot boobu almadi kenn dëkku fa euh, lu mat juróom-ñeenti mag ci magi lébu yi ñoom la daan woo ñu tase almadi ca ko def ñaan gi mu boot réew mi at mi yépp dara du yëngu mag ñi di faatu mag ñi di faatu mag ñi di faatu at mi ma mujjee yónni ni ma demal ma ca imaam Maodo Silla nga wax ko ni ko na ma seetal juróom ñaari juróom ñeenti mag ci mag ñi mu ni ma ndax ñaan ga ma daan def ak nijaayam ak mag ñi ma ñëw wax ko imaam Maodo Silla mu ni ma may ma une semaine waaw ndeysaan dama ko yeboon ci tooñ ko moom imam Maodo Sylla parce que dama am bëccëgu lëmm di ko wër sëñ Cheikh yónni ma ci moom fu ma dem ñu ni ma ayewu fi <laughs> ma gis ko ma ni ko imam waajale borom soxna yu bari neexu la wër <laughs> mu ni ma foog ma boole la ak sëñ Cheikh ni ko sëñ bi ne nga wutal ko juróom ñaari mag ndax seen ñaan nga waxtu wi jot na mu ni ma may ma une semaine ma ñëw sa kër ma toog une semaine mu ñëw kër ga ni ma mag ñi fi mu ma nga ci yi mu triste lool nga xam ni yàlla buur wax ko sëriñ bi mu ni ma xanaa bu nu jógee ñu seet waaw waaw bu nu jógee ñu seet turandoom cheikh borom tariq bi daan na ko def juróom juróom ñeenti magam yooyu mu daan tànn parce que mujj na génnatul moom cheikh muqaddamam yi ku ci faatu dañ lay indi ci buntu néegam mu génn julle la dellu ci biir néegam waaye génnatul bu bëggee ñu ko wër du passé juróom-ñeenti mag ñooñu ñuy faatu di faatu di faatu ba cheikh rekk des ci waaw mag ñi dund gannaawam daan barkeeloo fa mu daan toog ci zawiyam di wadifa mag mu fa toog ba lay am une semaine nga faatu waaw ndax euh, martabaam ni mu tollu woon Mais mag ñi bu ñu koy tudd dootuñu xam ci kaw lañu nekk wala ci suuf Cheikh Al am fitu taxaw ni pourtant Cheikh de mag moom ñoo promotion ndax fañ ko formé lañ ma formé moom Maodo mu wax ko te euh, may wax ni ci walu responsabilité ku ku daan jaxasoog nitu àdduna yi la waaw xam nga sëñ Babacar si dañ ko jëwee wax ni sëñ Babacar xamul lu dul yàlla mu ne ah kon fu may teg rabbana ma xalaqta hada batilan mu ne fu ma koy teg àdduna bi ni mu toll di omm nit ñi war leen yóbbu ci seen borom ñu ni xamuma lu dul addu eh, yàlla mu ni kon yàlla jéppi ma te ma am njaboot mu ni fu ma koy teg mu ni ni ma yàlla yitteele la ma àdduna yitteele waaw amul lu mu duggul ci loo xam ni lii ci àdduna ñu ngi koy doxal te boroom njaboot soxla ko moom Cheikh El Hadj eh, fii nag yalla dogal njabotam dama koy wax toujours kenn ku nekk am na fi soxna ci njabootu Cheikh El Hadj Malik. kenn ku ne jël nga doomu lébu sëñ Abdou daf may tooñ rek moom daal jàpp na ni man may famille bi waaw ku wax mu jabaru la am Pape la Eh, man na kiñ ma jox te mu bokk ci yéen dañ ma koo may waaw xam nga am na loo xam ni ku ko dépensé ci ci jigéen ba noppi ni dañ la koo may mais yaa ngi nelaw ah, dañ la koo wecci <laughs> dañ la koo wecci man seen doom bi ma nekkal am na lu ñetti fan di ko yóbbul teraanga ñu dinu ko delloo di wax ni faatiha rekk lañu soxla wallaahi lu ne lu ne ci alal yóbbu nañ ko ci or ci xaalis ci lu nekk lu ñu yóbbu ñu jox ko ku ko delloo si ni faatiha rekk doy nanu ma ni ah yéen de mën ngeen dimbali taalibe waaw mën ngeen dimbale taalibe ma ne Cheikh El Hadj ku amoon reconnaissance la dañ ko may zawiyaam bi ci avenue du président Lamine Gueye mu ne nañ ko ci ubbil buntu poot buntu poot bi jóge ci zawiya bi dugg ci biir kër gi mawdo ko fi ubbilu woon pour waxtu wu jullee rekk ñëw sant Mambaas ma fa ne ci zawiya bi nu ko may waaw pot ba Cheikh El Hadj moo ko fa ubbil woon waaw euh, loolu may wax ni fa tabarakallahu euh, tax na rekk ñu jël suñu bopp boole koog yéen ndax dañu wax ni lébu yi dañuy recevoir président Abdou juuf ca stade Iba xaaja aram jéen moo ko organisé woon yàlla na ko yàlla yërëm waaw soxna si ni ma samay mbokk woote te bu ma sañoon nga gunge ma ñu dem ci ma wax ko sëñ Cheikh mu ni ma demal officiellement waaw ma demal officiellement bul nëbbu demal waaw ñu ànd dem keroog Abdou Diouf ak Habib Thiam ndeysaan sedd jataay bi luñ ko sedd rek moom mbokki sëriñ mbokki nitu yàllaam yi ñoo ko bokk waaw Cheikh El Hadj loo ko sedd Cheikh Saadu Abi nga ko sedd Cheikh El Hadj loo ko sedd Sëriñ Tuuba nga ko sédd Cheikh ko sédd Seydina Limaamu moom nga ko sedd waaw maa ngi yóbbante léegi di wax nañu ma nuyul eh, alxalifa Cheikh Abdoulaye Thiaw waaw ndax Eh, dama amoon seex muy Chérif Ousseynou Laye wallahi dañu daan téléphonente guddi waaye bu ñu téléphonente ba mu yàgg mu ni ma jox ma son mbokk moomu ma jox ko sama soxna mooy mbokkam waaw ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm ci barke maamam yu baax yi tabaarakallaahu ah bu ko defee يا عبد القادر بي توك أه، واخنا دغ داني دون وقتان مانيكو امنا رانكونتر بو مسا ام في تي دكارو مانيكو نيت ني يالا تيرال دكار ريسوفوار لين مو شيخ سعدو ابي شيخ الحاج مالك ات سيرين توبا امو دي جتاي بو ام سولو ndax kero ñog le bu yi ñoo yendu wa fi ci kër maam gor naru lébu yi toggal leen añ euh, waaye añ ba lébu yi béggunu ci waaw ndax ñoom duñu ay lekkkat waaw duñu ay lekkkat lanu ca mos rekk bàyyi magi lébu yi wax ni kii occasion la bu yomb la am nañu leen wax ñu ñaanal nu yàlla booba ndakaaru ñi ngiy bay ndakaaru li ko wër yépp ay tool la woon waaw booba ndakaaru ñi ngiy def commerce mag ñi booba ndakaaru ñi ngiy napp mag ñi ñay def commerce ñaan lu ci seen commerce ñiy napp ñaan lu ci géej gi ñiy bay ñaanlu ci seen bay mais benn mag bu am xalaat wax ni mi nañ leen bàyyi ñoom ñu tànn luñ nuy ñaanal gis nga ñoom ni nuy joxantee cër keroog seen tisbaar dafa tardé parce que kenn nanguwu ci woon a jiite sa moroom buñ ne Cheikh Saadu abee doxal mu ne Cheikh Haj Malik doxal Cheikh Haj Malik ni sëñ Touba doxal sëñ Touba ni Saadu Abi doxal waaw ba seen tisbaar di bëgg a tardé ñu ni Cheikh Saada bi waaw yow comme yaay sëtu yonent bi waaw may nu jiitan mu mujj ko accepté euh, bi nu jullee ba noppi ñu ni nañu ñaan nañu ñaanal waa sow bi lépp luy teraanga ci réew mi yal na mujj ci sow bi waaw waaw euh, bërki démb bi may dem ci àll bi euh, maa ngiy wax ni kaw gi kenn desu fi waaw ñépp ngi dakaar te loolu ci ñaanu mag ñi la dañuy wax ni euh, foo jëm ci kaw gi léegi ñaari juróom ñaar rekk nga fay fekk xale bi am juróom ñaar at ak mag mi am juróom ñaar fukki at ñi ci des ñëpp a ngi ci teeru bi ngir yàlla ñaanu mag ñi parce que li may wax ni boo nekkee ca kaw ga am soxla am na sa mbokk mu sa xel xalaat ni bu ko yégee ci ndakaaru soxla ba faju loolu ci ñaanu mag ñi la leen ko yàlla terale fa tabarakallahu ah mu mel ni nag di leen fàttaliku ci yu demee ni dafay nekk farata waaw di leen fàttaliku fu ñu tollu ci yu demee ni dafay nekk farata ak moom damay faral di xuloog nit ñi dama leen di wax ni dangeen a gaaw a fàtte dangeen a gaaw a fàtte ñi ci bàmmeel yi waaw koo suul fàtte ko waaw euh, euh, dañ dañ ko woyafal waaw ba mu jéggi dayo xam nga dafa am wax bu yonent bi waxoon mu rëcc nu dafa waxoon ni bu ngeen demee ba toogaayu dëj neex ci seen xol jullit yi la wax parce que nee na moom moo tax lu jullit bëgg yàlla yombalal ko ko mu ni bu jullit yi demee ba toogaayu dëj neex ci seen xol dëj buñ demati beneen tàggee fekk leen fa tëj boo toog beneen tàgge boo war a dem fekk leen ah, boo nee sigil ndigaale ba noppi fa nga yem néew bi kañ moom bokkatul parce que ñaanaloo ko mais loolu ak yonent bi sorti bi mujj def fu mu dem ci bàmmeel yi armeel yi la dem ci sëg yi ah, ba mu taxawee ci bunt ba itam lu mu wax assalaamu aleykum yaa ahlal maqabir mu ni parce que ñi ngi jàkkaarloog man ah waaye yow koo suul fàtte ko koo suul fàtte ko koo suul fàtte bu ngoonee malaaka yi yóbbu reer yi yow ki nga ñaanalul ñu fàtte ko mais lu ko gën a yéeme amul lu gën a yéeme amul waaye yooyu yëpp nit ñi xalaatatuñ ko waaw te ku gis àdduna bi àdduna bi ni muy deme nga xam ni wax dëgg yàlla mu nga ca yoon wa waaw mu nga ca yoon wa te yàlla bëggoon ñu jariñoo ko moo tax mu séddoon nu ñett waaw séddoon nu ñett ci jikkoom séddoon nu yërmande séddoon nu sutura séddoon nu kersa waaye àdduna bi dem ba nit ñi soxlaatu nu sutura sutura wax ko borom bi ni ko kenn soxlaatu ma mu ni ko yéegal waaw ah. dem ba soxlaatu nu yërmande yërmande ko yéegal dem ba kenn amatul kersa kersa ni borom kenn soxlaatu mu ni ko yéegal vertu les vertus bu nu demee ba jeex ci àdduna xam nga lu fiy sës lekkante waaw lekkante rek fiy sës li may faral di wax ni il y a il y a euh, euh, des monstres à visage humain waaw parce que lu ñu jëf yàlla àtte monstre la leen di àtte mag ñi dañu daan ñaan yàlla mu continuer di alak nit ñi na mu leen daan alak ki xëy ñu soppi la nga nekk mbaam walla nga xëy ñu soppi la nga nekk golo bi nu ko ñaanee yàlla te fekk yonent bi ñëw yàlla ni rus naa ko parce que comme yonent bi ñëw na dootuma soppi kenn golo dootuma soppi kenn mbaam waaye ku nekk nag sa jëf mën naa ko féetale foofu ba tax na lu jara bàyyi xel la waaw lu jara bàyyi xel la fa yaakaar ñaanu mag ñi sëñ Cheikh si dañuy waxtaan munima ni ma lenn laa mënul a dégg ma ni ko lan mu ma nit ñi dañu defe ni yàlla la mu mënoon démb mënatu ko hmm? mu ni la mu mënoon démb ci maye ak mbaax mu ma tey la ko gën a mën mais nit ñee ko soxlaatul waaw mu ni ma dinañ ko wax ci làmmiñ rek mais soxlaatuñ ko parce que dafa am loo xam ni boo ko soxlaa comportement ci lañ la koy joxe waaw ci comportement lañ la koy joxe waaw euh, euh, damay wax ma ni ma ni waatal naa ne ci yàlla ni bàkkaar bàkkaar bu gën a màgg jëw amul ma bu njëkk daan nga gis ku xëy dem ci mbokkam pour dox fa ak bokk yàlla defal ko ci xéewal parce que dafa dox ak bokk mais bu fekkente ni léegi dangay xëy nag dem di doxi ak bokk te ka nga fekki yéen ñaar yéenay jëw ñi ñëwul fu ngeen koy teg fu ngeen koy teg waaw yàlla ni nga koy jaamoo ci sa digganteeg moom noonu la la ñaane nga jaamu ko ci sa mbokk jaam waaw musal ko ci sa làmmiñ musal ko ci sa lépp mu nekk jaamu yàlla gu yàlla kontaan ah waaw yow yaa ngi ni rekk du la neex nga comporté wo tàllal yàlla sa lox lum cay teg lum cay teg yooyu la mag ñi daan jàngale waaw yooyu la mag ñi daan jàngale Cheikh El Hadj Malick demoon na ci wallahi wal quraanil azim alaaji Amad Siise bu piir moo ma ko wax moo ñëw fekk ma fii ci sama kër goro Hadj Maam Yaasin Jaañ moo ko daan gàmmul mu ñëw ñuy waxtaan ma di ko laaj ci Cheikh El Hadj Malick mu ni ma aka seweeroon waaw moom Maodo ma ne ko mag ñëpp a sévéroon ku nu bëgg a jariñ foog ñu sévère rek ya ma ko ci yonent bi lañu ko ta la ko yàlla tàmbale yonent bi yàlla mësu ko may fu mu yekk nàkkam pour bañ ñu loo ko waaw te pourtant daan na toog entourage am jëw ko moom yonent bi yàlla ko koy wax ni ko sa entourage a ngi lay jëw nee nañu ni ngay séddalee maandu woo ci والله ah waaw te yow bu yonent bi waxee nga fottasu waaw bu yonent bi waxee nga jooy waaye la ci sa biir xul lu mu ñemewul damay faral di wax ni bu seytaane amee buntu rek moo ko ko ubbil waaw je l'ai toujours considéré l'homme

xam naa ni gëmu ko parce que dama ko wax ni ko mën nga naafi la ñaari raka yàlla jox la yoolu ku dem màkk mën na am ma ni ko loo ci sellal rekk ma ni ko sëñ Babacar si dañ sëñ Mansour ak sëñ Cheikh ñoo ko laaj ni ko góor gi lu tax demoo màkka mu ne ah dama tàgg woon seen maam mu ne ba mu jóg seet faf yàlla ate mu faatu xaw ma daf ma naroon bàyyi wala daf ma naroon toog loo moo tax ma toog waaw metuma dem waaw seetal loolu ah tabaarakallaahu yooyu lii Ablaye Makhtar wax Ablaye Makhtar suñu doom la du jóob way juróom bu góor fàttalikuwuma fu ma sëñ Cheikh ma sa yónni ci moom ni ma kaay ma yónni la ci du job daf may wax ni kaay seetali ma suñu frère ah li mu wax wax ko xalifa njaay eh, yaayam soxna xadi mooy caatu sëñ Babacar bu jigéen man maay caatam bu góor waaye yaayam mooy caatu sëriñ Babacar si bu jigéen ñu tudde ko sunu bàjjanu waalo waalo xarjata faal abdu booli waaw doomu ndeyu cheikh alxaaj malik moom xalifa njaay mansour buuna ay way juróom bu góor mansuur buuna buuna alburi maamaatam alburi dafa mës toog ca jolof ñu informé ko wax ko ni ko ah ñun de dégg nañu ni Malick Fawad booba Cheikh El Hadj Malick Malick Fawad lañ koy wax dégg nañu ni Malick Fawad ngi ci suufas jolof si fekk Alboury ngi soonu mu jóg toog ferankulaay mu ni Malick Fa Wade ngi ci suufas jolof si ñu ni mu ne kon sama ajo faju na mu ni bu ma jotee ci moom dana ma ñaanal lu ma ñaanal yàlla dina ko nangu te duma laaj weexal xam nga Alburi erreur bi mu def mooy bàyyiwul xel ni ñi ko daan ñaanal ñi nga ca mbooloo ma bañ fa jógee lañu dem gise ji ni nañ dugg ci suñuy yëf fexe ba bu ñu gise Cheikh El Hadj dox na li muy dox Jolof ba pare ba dellu te Alburi jotul ci moom pour pour won la yàlla kenn mënu ko wax waaw ki ko gëm ak ki ko gëmul al Cheikh El Hadj duma du ma laaj weexal mukk gis nga wexal ci ñaan ki ngay ñaan lo mu laaj la wexal mën na la ko bañ la c'est comme les honoraires d'un médecin médecin mën na la faj nga yëkëti dara di ko ko fay mu ne la baax na waaw ah. mais ki nga xam ni nag euh, weexal moom la def moyen d'existence kooku bu laajul du añ waaw bu du añ maa ngi koy benn benn mbokk taalibe que euh, dafa ñëw dama ko soxla ñu ni mu ni waaw dafa am saraxu xar buñ ma digaloon ma ni ko may yéen war nga def saraxu xar rekk ngeen dem jënd xar rendi ma ni ko te négocier wu leen bakkanu xar meeg seen borom ma ni ko boo négocier wul bakkan beeg sa borom ma ni ko li nga ci jublu doo ko am ma ne ko parce que li ñu la ne nga def ko pour sa aajo faju ci sarax bi yow buñ la binduloo woon bakkanu xar mi doo ko mën kon na nga négocier bakkanu xar mi sa digganteeg sa borom ah, mais defal sarax rek nga dem ma ne ko est li ngeen di jàng ci paaka biñ koy reye jàng nga ko mu ne xamul woon dañ ciy jàng dara moo tax bari na xar yu nuy rey te ajo borom du faju waaw ajo boroom du faju dafa am yoon lu ci nekk dafa am yoon dëgg la nag innamal amalu bi niyaat waaw wa innama li kulli imri'in ma nawa kooku mi ngi fi mais rekkit wax xar mi yàlla xar bii nga ma wërsëgale maa ngi delloo si bakkan bi ci yow di jël sama aajo teg ko ci gannaaw bakkanam pour jariñoo ko nga négocier ko ah waaw boo ko négocié wul ah, sëñ Babacar si ku mënoon tere yu deme noonu la waaw nga daan ñëw nuyu ko bay génn mu ne baa du ngeen sikkar déedéet waaw ah, bu leen mag joxe tur bu ngeen amee junni walla ñaari junni jox leen ko ko waaye bu leen sikkar mu ni doom xam ngeen sikkar nu mu mel mooy ngay ndaw ab laa fi malaaka naawe ko boo demee ba ca kaw bu malaaka mi nangoo ay laafam lu la wàcce jaaxal la wallahi waaw yi eh, bàyyi ci xel mag ñi mësuñu mësuñu wone lu nëbbu ci ay combine ak yi lu leer lañ lay tënk lu leer lañ lay wax waaw surtout ku ci meloon Cheikh El Hadj nga xam ni mag ñi mu nekkaloon ci biir néeg mu di leen yar ñoom Serigne Alioune Guèye ñoom Alaaji Amar Siise kenn ku ci nekk nee na la kurusu ebenam boobu mu daan yor bu diis bi bés dikk na mu dóor la ko moom Maodo pour bañ rek nga juum waaw pour bañ rek nga juum waaw sëñ Babacar Si daf ñu daan wax ni seen maam mu mere la moo gën mu jéppi la waaw mu ni bu la meree bëccëg dana dikk mu wax la lim la meree mais bu la jéppee nag mënatoo fexe ba sa dara saf ko waaw tabaarakallahu yooyu moom lañu fi doon jottali mu jëm ci Cheikh El Hadj Malick mën nañ fi toog ba bés bi delsi rekk di wax ci moom te mësul nangu nekk leneen lu dul njabootu yonant bi waaw moom loolu rekk ko yitteeloon ah kii di xalifa njaay nag tabaarakallaahu suñu uh, man sama neveu yépp ay cousin laa leen jàppe waaw parce que ku ma ku ma ci maa ngi koy wax amada léegi am loo xam ni maag ñoom rekk koy déeyante waaw moo leen ko waxee ñu ree ba tëddi suuf waaye rekk dafa yem suñu diggante waaw moom Xalifa Njaay xam nga bi ma bi ma juddoo alxaaj Saïd Nuuru Taal dafa ñaan sëñ Babacar pour mu tudde ma ko alxaaj Saïd Nuur sëñ Babacar wax ko ni ko dama séddagul boroom kër gi Maodo xaaji euh, Saïd Nuur ni ko jox ma tur wi ni ko keneen dana juddu nga tudde ko Maodo sëñ Babacar ni ko keneen dana juddu waaye góor dootul juddu wallahi ni ko góor dootul juddu pour woon la ñoom duñu ay nit yu normal waaw duñu ay nit yu normal li ñu xam dafa bari waaw li ñu xam dafa bari واو سيد الحاج مالك سي سمام الحاج منصور نينكو شيخ تقي لا يزن بريبة على استقامة بالإله المعاني سيد الحاج مالك مودو سترونو موي عين الشريعة والحقيقة النوى مودة عين الشريعة والحقيقة النوى مودة سيد الحاج مالك سترونو من يهدي المريد لخالص أنياني سيد الحاج مالك موي سامي المقامي وعمدة العلماء بل تاج العلا وكم اعترى القمران سيد الحاج نعم. مالك سي Maodo yeete na gindee na réew maa ngi ba kenn dofatul sharqan wa garban ulama ngi fenn desul Alaaji Malik ngeen muñ waaw yéen ñi doon woy woy ngeen kenn battre lu leen woy ngeen kenn baatreelu leen te yéen la ñu waroon a baatreel woy ngeen kenn baatreelu leen wallaay ndeysaan wallaay ah farata la farata la gis nga lii ngeen woy ci njool faama Cheikh El Hadj Malick tere woon na ko ca Ndar waaw Cheikh El Hadj Malick dañ ko woy ca Sor à Saint-Louis xeex am fa ndax Maodo mi nu woy ba mu ko yégee mu wax ni bu ko kenn woyati moom Cheikh El Hadj Malick mu nañ ko bàyyi sëñ Babacar génn wax mag ñenn leen woy leen ko nee keroog la seen maam mësa tere lu ma lu ma def sëñ Babacar ni mag ñi woy leen ko Haji Sayid Nuur del si ni ko ah, li nga tere woon Babacar ne bu ko mag ñi bàyyi nañ la woy Maodo woo sëñ Babacar ni ko waaw ñi ma ni woon buñ ma woyati yàlla ni nañu may woy sëñ Babacar ni ko maa leen ko wax góor gi woyunu la pour nëbbal la sa ayib dañoo bége sa njub waaw ku ne am na nag droit bége sa njubu kilifa mu ne ah, xana loolu bok mom mawdo mu waye way jam tax bu nare jur ay mani nañu ko bay sëñ Babacar ni ko ken du ko bay wallahi ko ken du ko bay rek tabarakallah yoy lako yàlla sédde won mom ku yeme la won moom Cheikh El Hadj Malick daan wax ni àdduna lenn rekk ma ci yéem moom Maodo waaw nee na àdduna lenn ma ci ñu ni ko lan mu ni dërëm mu ni ni mu li mu yàq ne ni mu tuuteeg li mu yàq yàq na ànd tas na ak bokk fecc na ko lëre dërëm waaw seetal loolu ak ni dërëm tuute waaye rek forsam waaw moom Cheikh El Hadj Malick daan jékki-jékki wax baat muy téere waaw tabarakallahu waaw xanaa ñu sant ñëpp sant suñu mbokki jigéen ñi jàmbaar lañu te damay wax ni mag ñépp leen joxoon cër waaw parce que mag ñi fi jaax baax ñépp jigéenay seen waajur waaw ndeysaan mag ñi fi baax ñépp jigéenay seen waajur waaw te yàlla jox leen nag njaboot yu barkeel yàlla defal leen ko ci biir defal leen ko ci biti waaw <laughs> Cheikh El Hadj maam Roqaya Njaay mi jur sëriñ Babacar daf ko wax ca ndar ni ko ndar dafa am lu fi xew mu ni ko lan mu ni ko ku fi am soxna dangay maye njëkke waaw ni ko taman waxagooma ko may njëkke ci man mu ni ko yàlla la may njëkke ci yow waaw wallahi moo tax sëñ Babacar daan na tooñ reeloonu problème ñëw mu ne ah xaaral ma ñëw wax ak sama bàjjen yàlla <laughs> yooyu yëpp cëram la tabaarakallaa waaw man bi may dugg si euh, soxna si la àndaloon waaye ñu àbb ma ko gisatuma ko ah, waaw kañ <laughs> baax na waaw kañ baax na moom mooy seen mbokk mooy seen doom mooy seen sët waaw léeg-léeg xale yi dañ koy sonnal xale yi ca kër ga mu di leen booleeg sëñ Cheikh di wax maam Cheikh xale yi dañ may sonnal rek sëñ Cheikh ni ko parce que yaay seen taalibe waaw ko yaay seen taalibe nag sañ nan laa sonnal waaye rek tarbiya tarbiya wàññiwul dara tarbiya wàññiwul dara sëñ Cheikh dafay wax ni góoru Sénégal mu mën a sonnal jigéen waaw ah, bis bu ne mu wax ko waaw ah, mu ni góoru Sénégal moo mën a sonnal jigéenam waaw ah, xam nga ah waaye góor ñi ni ñuy won jigéen ñi tëkku leen xëbal leen sa àjjana ci ci man la dépendre te yow xamoo foo jëm mais kooku kooku chantage la kooku chantage la bërki démb laa koy wax mbokk taalibe bu ñëw di ma wax ni soxnaam dafa fay ma ni ko may bi moo daan fay parce que nee jigéen warul génn kër jigéen ju xam boppam warul génn kër bu mësaan am lu ko metti mooy takk ëmbam bu ndaw moom yonent bi laa wax de dem ca jàkk ja tëdd fa waaw ah, boo waxee mu ni déedéet man maa fi nekk yàlla bu may fay ci néegam lay dem waaw ko defee mag ñee seet rek ñëw ci jigéen ñi sermoné leen dal ci seen ko ba ñu xam ni kii du jëkkër kese kese waaw waaye yonent piir la ñu ñëw jéggalu baalu àq ah ko

mais kooku chantage la waaw chantage pire la ko defee nag ñoom ndeysaan dañu gaaw a jaaxle ah baal ma nijaay nangam nangam waaw baal ma nijaay nangam nangam te fekk rek moom ah waat naa ci ni am na góor ñoo xam ni jigéen ñee waroon amee cravage waaw waaw amee krawaas dal di leen ko dóor benn bàkkaar du leen ca topp ah ñu ngi bëgg a rey nit ñi ñu ngi bëgg a rey nit ñi yooyu itam loolu kenn xamul lu mu doon waaw ah, ko defee tabaarakallaahu ñu ñaanal leen yàlla ñoom jigéen ñi waaw ah, parce que mag ñi mag ñee leen tàmmul seen bopp tabaarakallaahu ah góor ñi bari na ñu wéradi yàlla may leen wér maa ngi koy wax Ablaye Makhtar bi may door a agsi ma ni ko sa papa Cheikh nee koo taseel léegi laaj ba nee ko bàyyi yaa ngi tane waaw koo taseel rekk laaj ko ko parce que ñëpp wéradi ko defee tabarakallahu ñu ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi yàlla dolli sutura yàlla dolli xéewal tabarakallahu yàlla may nu ñun ñëpp ñu gudd fan ndax Cheikh El Hadj moo daan wax ni ragal yàlla du tax mu ñaan gàtt fan mu ne bu sañoon gudd fan di jaamu yàlla di nangu wallaay kon defe na yàlla may nu gudd fan waaw tabaarakallahu loolu rek mooy li am solo yaakaar barke mag ñi yaakaar seen leer yaakaar seen liggéey xam ni àdduna yëpp xaj nañ ci waaw àdduna yépp fa tabarakallahu xaj nanu ci dama dem Touba sëñ Cheikh yónni ma ni ma demal nga seetal ma sëriñ Abdoul Ahad daan na ko faral di def ma demee ma yondoog sëñ Abdoul Ahad ñun ñaar rek ñuy waxtaan mu di ma laaj sëñ Moustapha Jamil agem laaj ma sëñ Mansour agem laaj ma sëñ Cheikh agem laaj ma sëñ Abdou Hacham ma xam ni moo ko moom waaw ma xam ni moo ko moom waaw euh, mu di ma muñ moom sëriñ Abdou Lahad mu ni ma sa maam sëriñ tuubaa dafa waxoon ni kilifa gu gis ñaari nit lay jaboote ki boppam fees ak ki boppam feesul mu ni ma sa maam sëñ Tuubaa nag nee lu ne ci àdduna gis na ko waaye mësul gis fu nuy feccalee bopp bu feesul wallaahi mu ni ma nee mësu koo gis mukk mu ma yéenay muñ rekk ma ni ko sa jigéen ba woon ci waawoon de soxnaa sukkan daf ñu daan digal daf ñu daan wax ni doom bu ngeen di wuti soxna défo défaut bu ñu la wax ne ndaw si am na ko bu mu tax nga wàññeeku mu ni parce que défaut yépp lañu mën a corriger mu ni benn défaut rekk bu ñu leen ko waxee ci moom nag wàññeeku leen bu ñu leen nee xel ma dafa gàtt mu ni ndax xel mu gàtt dee su ko sufurle waaw mook borom ba ci biir bàmmeel waaw bopp bu feesul kenn du ko feccali euh, bu gàtt kenn du ko sufurle xel ma kenn du ko sufurle wallaay ko defee tabarakallahu ñu sant ñëpp ñaanal yàlla ñëpp yéenay suñuy mbokk yéenay suñuy goro xaw ma lu tax sëñ Cheikh ak sëñ Abdou ni ma yaay lébu famille bi waaye bu ngeen amoon ay carte membre ma jël ci benn leen loola loola mënoo ci dara kon tabaarakallaahu bu fekkee dafa am keneen ko war a sànni kàddu ñu jàng fatiha fa la naa si ñetti peru salaatul fatiha jàng yaa salaam fukk ak juróom benn farxam waafu wastur tafaddulan bi afdali mabuutin ila alxalqi di lfaxri a mawlaaya yaa dal fadli juuduka dallani عليك فجب العافية واسع الستر مددنا أكف السول راجنا منكم جميع الذي نبغي من العز والنصر وباب كما وافاه عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والأجر لم ينل بجودك ما يرجو nu ko yàlla nangu yàlla defal nu jàmm biir defal nu jàmm biti ah kon nag ila marratin uxra incha allah صلاة وتسليم على شافع الورى محمد المختار خير بني فهر وأزواجي ولال أنجم ديني وأصحابي من الطغاة ذوي الكفر سير المرسلين هادي البرايا لرضا الله والد الزهراء خليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيامن خليل يا عجا وانزلا بالتواون